père ñu ngi lay nuyu di la maa leen di fay bu baax a baax. waaw oh, jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. woote bi ko waral ah woote bi de li ko waral mooy euh, woote jàmm ak salaam ndax pikin ku nekk xam ne dafa yaat dix-neuf écuries moom moo ne Pikine mm-hmm. te sax booy seet Caaroy ci la bokk. Mm-hmm. Lansar ci Pikine la bokk. kon pikin dafa yaatu ñooñu ñëpp sax waroon nañ ci ñëw mm-hmm. li waral nag mooy union union mbooloo mooy doole ay nit bu ñu boolee seen bopp amul lu ñu mënul régler kon département bi dafa laaj nit ñi booloo nekk benn xeex xeex li nga xam ne moo war a xew ci làmb ji muy maanaam yar ak teggin bi war a am ci làmb ndax ku nekk kenn mësul gis ñu jox làmb bisu bu mat trente et million millions quarante ñu damm seize fatt paxu dossier loolu problème la insécurité bi nga xam ni am na ci département bi yaakaar naa ne problème la làmb ji war nañ ci man dara surtout nag Pikine bu ñu xeexee ñun war nañ mën a jàppale état xeexu euh, li nga xam ne moom moo jëm ci nekkinu xale yi maanaam booy xool Pikine booy seet ñëpp dañu dem nekki mbër ndax ñàkk lu ñu def est-ce que jotul ñu jàppale leen ba tey xale bi même bu bëriwul mu mën a am ci lu mu jàpp. dafa am encore manque de confiance bu dox ci diggante autorités yi ak athlètes yi est-ce que jotul athlètes yi ak sportifs yi mbër yi seen diggante yi tax loolu tamit problème la boo xool sax mbër yi association dix-neuf écrits yi nekk fii xaw ma vingt écrits yi amul benn situation boo xam ni ñoom ñu ngi koy génne di ko jox école de lutte wala écrit loolu tamit problème la kon daal union moo ñu fi indi nag xeex li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ñëw ci làmb ak li nga xamante ni suñu ko liggéeyee dina jur ay banneex ci jeunesse bi ak waa làmb am ngeen yaakaar ne mbooloo bi ngeen dajale tey muy deux cent pour cent bi li ngeen bëgg ak li ngeen euh, ñaxtu pour am ko jàpp ngeen dina yomb wala gën a ci réunion bi xam nga bale boo ko boolee doo ko dam mhm. mais boo jëlee benn bant soo ne nii sa ñaari baaraam mu damm loolu moo tax ñu ni kon mbooloo mooy doole ah nañu booloo dem seeti waxuñu nag ni li ñu bëgg dina nekk waaye daal bëgg nañu bu ñu booloo dem xeexi def résultat wala ñu am loo xamante ni njariñ la boo xam ne xalaatoon nañ ni bi ñu koy def lii la mën a jur waaw. Ah, bu ñu ci loolu ñu ngi jëm ci combat bu am solo muy combat bi xam ne capital la ci biir Pikine. muy le 19 juin ak waa jàmbar production diggante Franc ak Sokh fa lañ ci toll. waaw Franc ak Sokh de combat la boo xamante ni combat jànq la. làmb moo leen boole. mënuñu tàggoo. làmb moo leen boole. Sokh dafa nekk ci yoon di def ay résultats Franc di def ay résultat ba làmb boole leen. mu nekk combat boo xamante ni. Euh, combat amateur la du combat fan si club combat am fan mooy combat bi nga xam ni soo jógee say waa kër ñëw boo bëree pare ñëpp ñibbi mais combat boo xam ne nag ñëpp ay toog moo daan tàng may reetaan uh-huh. combat boo xam ne ñëpp ay toog seetaan ko bu mu jeex mm-hmm. ñoom ñaari mbër yi ku ci ne am nga atu mm-hmm. soq ku ne xam na ne xaleela boo xam ni dafay xeex mm-hmm. di bëre te dañu gis ni combat bi dafa yokku yokku boo xamante ni ci mental yokku tamit ci euh, physique état de forme bi mu yor tamit am na sax ñu ko xaarul woon. Mhm. ba pare dal. waaw licite. ñu gis ñu loolu manqué woon na ko te loolu la ñu gis ci moom actuellement. Mhm. kon jàpp nañ ni combat bi am na lu mu ko jaral te am na fu mu ko mën a yóbbu. Mhm. loolu dayoo bi la wala adversaire bi la. waa xam nga combat dayoo combat mooy yokk mbër. ndax nga jël combat boo xamante ni rëyaayu combat bi. dina la jox lépp loo manqué woon nga wuti ko. am na combat yoo xam ne boo ci boo ko jëlee da nga fay jóge doon mbër. nga daan ak nga daan. kon dayoo combat bi tamit feeñ na ci. ba moom mu am loo xamante ni manqué woon na ko. te loolu yokk na ci moom tey. Euh, Franc aussi moog Reug Reug ñoo bokk parcours. dañu nekk ñoo xam ni lépp lu ñu waroon def ci li traditionnel def nañu ko. Mhm. amatuñu lu ñu prouver ñu nag daw ñëw dugg si ci lutte frappe bi mais bi ñu ñëwee aussi dañu comporté woo comme ni ñu doon def ci lutte traditionnelle bi dañu ñëw rek di daan seen i morom gis nga fi mu jaaragum lépp dafa nooy kon combat la boo xam ne aussi daal mën naa ne ñoom ñaar ñëpp am na si ñoom lum fu mu leen mën a yóbbu waaye ñoom ñaar ñëpp am na lu mu leen jaral waaye ñoom ñaar ñëpp aussi ku ko ci gagné. Mhm. day doon combat boo day doon euh, victoire boo xam ne day doon victoire bu éclatante. Euh, dégg nga gën a man de jàpp naa ni cinquante cinquante la si ñoom ñaar. parce que ku ci nekk rek li mu li la sa jaral sa morom rek loolu la la jaral. Mhm. te ay xale lañu. Mhm. Euh, ñoo bokk parcours. donc cinquante cinquante la daal combat boobu. dégg nga Franc li wax. lu Franc wax. mu ne 100 pour cent 200 pour cent yëpp da koy tas te ñi ko mer ànd ak ñoom nañ am ngor bu daanee bu daanee euh, soq nañ ngembu xaar. xam nga loolu waxu mbër la. Mhm. Franc il faut mu yokk ci xar mi karaw. Mhm. neexal bis 200 pour cent wu Pikine. Mhm. bañ koy liggéey liggéeyuñu ko pour benn komba dañ ko liggéey am na lu bëri loo ma laaj. ma wax la ci ni mooy xaar waa Pikine. waa jóg nañu pour liggéey si. pour yooyu faju yooyu faju donc franc taxul. Mhm. et du problème ay tas écrit ak ay tas deux cent pour cent yooyu ay àndandoo. lii dañ ko nas pour lu éternel. Mhm. dañ ko nas pour mu xeex liit contre criminalité bi. Mhm. dañ ko xeex pour arène nationale bi. siège damm dootul amati. dañu ko xeex. dañu ko xeex pour fair play bi ak discipline am ci làmb dañu ko xeex pour mbër yi xam ni duñu ay euh, ay ennemis dañ ko xeex pour mbër yi aussi ëllëg ñi bëriwul am ci lu ñu téye. kon affaire bi dépassé na Franc di wéy. na ko il faut moom mu xam ni. lii moom taxu ko jóg. te nag Pikine ah ku leen mës a song day ah. ku leen mës a am na foo na laaj roi des arènes yeeg ñi ci woon te na xam ne Pikine Caaroy ci la bokk na xam ne Pikine Lansar ci la bokk eh. kon buy dëkk na xam li muy dëkk de père dama ko jeexalee père ndax euh, euh, soxu mbër bu ñu may trente secondes la non du mbër bu ñuy may trente secondes soq li mu am yëpp jom ak fulla ak fayda moo ko may. Mm-hmm. bu ñëwee day day dina fecc dina indi sportivité dina xeex dina bëre. Mm-hmm. donc kon limu am dafa xeex ba jot kon dumbar mbër mu ñuy may ay seconde man daal li ma ciy woote ci combat boobu jàmm ak salaam ak fair play ak discipline te xam ne ñoom ñaar kenn pertu gagné euh, pertu ci mm-hmm. lamb moo ci gagné d'abord nañu am esprit boobu mm-hmm. nag doog seet li ci des nag moom ca géew ba la. walaay leer jëf.